assainissement bi dañ see war a jublu te farlu si ndax man la ma man mooy bu ma nekk député de peuple ñu ma ñaari yoon damay joxe maanaam information pare ay joxe ay solution dama leen waxoon nii pour que ñu bañ a nekk di gas li nga xam ay bassin rotation ba tey boo jëmee kër kàbbu nga jëm daal rahman nga jëm ngëlëmu fees na bu tawaatee dafa rëfu la ak fi nga xamante ne mooy wetu jumaa ji nañu jël maanaam deux voies yi nga xamante ne maanaam moo jaar si autoroute bi côté bu nekk ñu def xunti ba Thiès ñuy manque ndox mi muy évacuer fa toow fu mu jaar fu nekk askan daan si mën a bay ba pare nit ñi daan si mën jur gi daan si a naan yaakaar loolu bu ñu ko defoon solution rek Touba rek lawu te loolu projet bi dama ko xoolee ak partenaires yi ma yor 70 milliards francs CFA kese la yaakaar naa loolu état war na ko def fekkente ne bëgg na defar Touba muy assainissement bi mais malheureusement nag comme li ma leen wax mooy tamit maanaam ah, bëgg-bëgg pour que jafe-jafe ñu ñu ñu génn si fii ba fukki at Touba si nawet la ñuy nekk léegi nag euh, wax naa sëriñ bi léegi nii si biir am na lu ñu dénkoon ci liggéeyu Touba bi bi mbënd mi amee yëkkati naa ñaar fukki moto pompe dimbali askan wi jënd essence jox leen jënd leen jox leen ay tiwo loolu nag mooy lu ñu war en tant que citoyen boo xam ni da ngaa dëkk sa dëkk nekk député askan wi fa doo ñëw rek di wax wala nga ñëw bëgg bës wala yooyu dangay ñëw pour dimbale askan wi nga xam ne moo dëkk moom nga dëkkal mais gis naa fi baree bari nekk ay politiciens bu ñëwee dañuy ñëw sëñ bi sonal ko ak wax ju bari mais mu jël seen ñàkk leen yàlla may dimbale ko population bu Touba yaakaar loolu euh, lu ñaaw la te loolu euh, bëgg nañ mu arrêté aussi ndax fii du foo xam ne da nga ñëw pour défile fu n'importe quoi nga dem ñëw pour wanewu ngir bëgg am ay ay ay wala bëgg am ay nit wala mbooloo da nga war a génn si ñaq ndax ñu si bari ay milliardaires lan am nañ alal nañ jël si alal jooju dugal ko si population bu Touba moo gën li xam moom la ñuy def loolu nag sama si tàmbali def naa ko maa ngi woo p bi di soññ état aussi di soññ ñi nga xam ñooy responsable ni ma def